c'est c'est que moom c'est côté yooyu aussi tamit dafa am sénégalais yoom loolu la ñuy nattee ñoom nit mm-hmm. foofu laa lay waxee mais mm-hmm. lafaire de pétrole gaz l'affaire euh, foncier tey gis nga tey Tahirou Sarr ci laayeen yi rek nga ko doon dégg mm-hmm. nongoloo moo ko way ne la marché ambulant mu def parcours bu garaaw ci affaire coow 94 milliards yi si la deram yàqu mu nekk nit ku xam ne sénégalais kenn xamu ko woon. Mhm. lu dul ci liggéey. ci tey sénégalais bu ko gis jàpp yàq deram. Tahirou Sarr si Paris par là par ici alors que adduna bi ci Afrique ci sous-région bi ñu ngi koy wër. parce que liñ koy waxal la moo tax moo dem ba yàgg si booy si nopp nit ñi. léegi ñoom ni ñu accusé Tahirou Sarr ba deram yàqu ci adduna. Mhm. nga jël Babacar Ngom Sedima man dem naa émission attaqué Babacar Ngom. Mhm. attaqué Anta Babacar ne yow da ngay ñu yab. ñëw di ñu woon ay délibé affaire yeeg yooyu. te foofu mu ñu jox Anta Babacar Ngom tey euh, papay deux cent personnes waa dëkk ba ñooy réunion tey Ndingler dossier boobu de dina jógaat xam nga pour man dafa jot ñoom dossier yooyu ñu ñëw setal ñoom yëpp dañ koy yëkkatiwaat xam xam nga yi ñu tooj yi nga xam ni dañ ci nekk ay nit ñu am mm. problème beneen bi mooy dossier bi même même dossier bi Aliou Sall bi nañ ko indiwaat mm. nañ indiwaat Mamour Diallo non non non xam nga lu tax mais li li mamba kii nee na taabu non xam nga xam nga tey man Aliou Sall Aliou Sall ah, ni ma xamee Aliou Sall non xam nga Aliou Sall ni ma ko xamee ci diine hmm. xam nga gis naa ay nit yu bari ñu naan non dafa am ay école am ay leneen ak ah, nangam ñu ne am na école am nay leneen xam nga Aliou Sall hmm. ba muy nekk Chine conseil économique xaw ma lan eh, économique yàgg fa ba ñëw bu hmm. ki Sall ci régime Ablaye waat nga gis Souleymane Jules Diop wax la ne xaritam la man xam Aliou Sall kañ laa ko xam kañ la ñu xam mës a gis Tiwaawoon mu bokk cellule Zawiya bu bokk ci doomu al amin yi. Mm-hmm. parfois nit ñi comme président Pape Diop bi ma ko fekkee Almadi mm-hmm. mu doxal boppam julli génnaat dugg dem ñu taxawaat kenn nii banaliser wu ñëw ma ne ko nit ñi dañuy juum. Mm-hmm. mu ne ma ma ne ko gis nga de lii geste bi nga def nii ak lii mu ne ma non man fu ma dëkk maye jàkk ci wet gi. ñu lay mu ne lii nag commencé wul léegi de ci jamono ab Ablaye Wade ya laa ko tàmbali woon di may nit ñi oto di jàppale nit ñi di def leneen ak leneen nga gis ko tey ku mel ni Tahirou Sarr ñu ne la boo demee tey dëkku Seydina Limaamu Laay bi boolewul dara ki wax mm-hmm. nga gis ku mel ni Babacar Ngom yële sédiment fi yegg si fii ñëw ba foofu jël suuf tey suuf boobu am na yeneen nit yu ko wër mm-hmm. nga jël Aliou Sall Aliou Sall foofu laa ko xamee Tiwaawoon bi muy yor kii beeg affaire yeeg yooyu taalibe la mm-hmm. ñuy daje ci xadara di daje ci leneen mais tey buddu Aliou Sall boo taxawoon nga def nii témoignage nit ñi mën nañ la accuser même bi ñuy doog falu am na sax ñu def vidéo dem Tiwaawoon wane cité HLM yu bees yi mm-hmm. ne gis ngeen Aliou Sall moo jënd lii Aliou Sall moo moom lii loolu moom loolu nag tooñ nag waaw tey jii ne kooku nga xam ne ni man ni ma ko xamee ak ni mu mel benn crime rek la def mm-hmm. mooy mook président ñoo bokk mm-hmm. ndey ak baay yow maa ne boo amee frère boo bokkal ndey ak baay mu doon président la république suñ borom moo dugal président seen biir kër mais sénégalais dafay iñaane sax loolu. loolu kay yàlla suñu borom def nañ ko fi Maria xawma ak doomu doomu doomu Mansour Faye bi. Mm. jàng Amérique ñëw ibbi ay nagam def islam lance islam ñu ne ah kii ko. ko pointé du doigt. que soxor boobu mooy lan. doy na waar. xam dañ soxore nañ seen bopp ba ña daan dimbali sax léegi bàyyi nañu dimbali parce que dangay ngay dimbali nit mu ne la danga daf ko sàcc mm-hmm. wala sa alal la la jox te ki la koy wax mosul dimbali kenn ñi daan attaqué nit ñi tabaxuñu usine tabaxuñu pneu defaruñu dara temps bi ngeen leen di xasee ñoom ñu ngi toog di liggéey. toog di parce que man bi ma demee ba gëstuwaat ñooñu seen liggéey ak seen jaar jaar ak fi ñu jaar dama ne am na ñu ñu tooñ. moo tax pour man l'affaire Barrick pétrole bi nañu nañu nañu nañu setal xam nga tey dafa am yu bari ñoom yegsi nañu. Mm. yi ñu Ousmane doon wax yëpp ba ci affaire Mamour Diallo yëpp war a ñëwaat ci table bi l'affaire Mame Mbaye Niang yëpp war a ñëwaat ci table bi xam naa bu dee bu dee bu dee Alioune Sall l'ancien maire de euh, Guédiawaye moom am na lu mu guux bëgg kaa wax non xam nga moom taxaw na ah. moom ci émission wax. wax expliqué na mhm. taxawaat wax mais xam nga man ku mel ni man man keroog bi ma jotee ab Ablaye Mbow fu ne ngeen dégg may wax ak moom bi ñu jotee ci plateau mu génn ba mu ma fekkee fa ma nekk ca jàkka ja di julli mu ne ma moom ci wàllu boppam ne ma maa ngi jéggalu su ma mhm. sañoon duñu nangam nangam. mu rafet geste boobu mu def te mag ma doon di jaay ci man. Mhm. parce que ñaari kër yi jàkkaarloo Pikine sama yaay ne ko dee ma ko xoolal. sa mbokk la mu ñëw ne ma yow mii tey sama cheikh nga parce que taalibe cheikh nga tey waruma am kilifte bi ma ko damaa génn ci pénc mi. Mm-hmm. daal di ne wan leen jikkooy sangam ne leen kii kat nangam nangam wax ko adduna yëpp. Mm-hmm. ñu yëg ko l'humilité man Sénégal rek laay gis. nit da da ngay njiitu réew wala président comme foofu la ñu war a ci seen homme politique yi. ku ci mm-hmm. def erreur ñemewul tiim askan. jéggal leen nga gis Japon wala siin dégg naa boo defee benn foot ñi askan yëpp da ngay ñëw taxaw nga sëgg benn minute. mis nañu ne benn ministre boo xam ni benn foot la def xaw ma lan la def mais mu taxaw jéggalu sénégalais Bill Clinton jamono ya mu amoon ca problème ndaw soosu mm. bi ko sénégalais bi mu kiiwee dafa taxaw bigg Amérique jéggalu leen yow njiit bu amul immunité jéggalu ay askanam wala njiit bu amul immunité daan ne lii kat erreur la woon. la loi du plus fort. léegi kooku noonu tey am rëy googu tey kooku di nga ko mën a bàyyi ak sa bopp. wala nga koy déglu en tout li ci des mais man daal mm-hmm. ñun du ñu juge mm-hmm. man je mm-hmm. le dis lu ma fekkeewul du ma ko def du ma ci wax. parce que bàmmeel ak leneen laay sóoraale ak ak ak ak nelaw nelaw dafa neex. Mhm. te boo loo munti def. nelaw en conscience waaw gis nga nag te saa yooyu nelaw sa conscience da lay mhm. saa yooyu sangu sa conscience da lay. Ah, booy sangu. sa conscience day taxaw naan la yaa mën a kàcc. yaa mën a def yow rëy li nga looloo tax crime boo ko defee chaque foo force da feeñ. Mhm. crime ku ko parfois moo tax nga gis ñi def del duñu duñu rek duñu am dal. ñi nga gis ñuy wax rek mbir mi ñoo ciy woote ñooy ngaf nga parce que ànduñu ak seen sago gis nga ki ànd ak sagoom xol wu rafet la yam te day mën a baal conscience ñu bari nag dañoo nekk seen tribunal benn sama waay benn waay dafa mos a conscience moo gën a grave moom dalay bu amoon bu amoon ñëppay feeñ non léegi nag xam nga déedéet moom dalay condamné da dalay condamné mm-hmm. ba pare tëj la prison mm-hmm. moy c'est-à-dire yow fo tok da ngay am paranoia. ba pare lu ñu way wax da ngay fan bari ñoo xam ne paranoia la ñu am moy dañuy moy ñi tim comme tay gi nga gis ñoo ni duñ leen def dara mais ñoom ñoy woté xulu ñoy woté ciow ñoo andul ak dal xam tay tey ñi fi jaaron ay ancien régime dañ ñaw ñu ne man musuma yëg li xew xaw ko nangam mhm. nangam parce que parce que sa conscience bu tranquille sa nopp garmi ngay yor yeen ni doo ko lu ñaaw doo ko conscience tranquille lépp mbir jëfoo dara nopp gar ngay yor mhm. do dégg lu ñaaw lool lay wax man parfois loolu daf may dal gaa yi dañoo mën a leen li tax duma liir lire commentaire mooy man sama bët laa defar ba du dégg gis lu parce que duma ma xool yow boo demee Touba tiim tiim ba euh, euh, kii bërëbu Serigne Touba xool fi mu jaar tubaab bi yëpp mhm. nga dem Tiwaawoon gis bërëbu Seydi Hadji Malick bi lu dégg ci yonant bi way na yonant bi ba ay nit am ci liggéey mhm. nga dem rawdu Sëñ Babacar tiim nga bët bu rafet gis lu rafet noonu war ngaa gisati lu ñaaw ak baax surtout nga ñëwaat sa nopp yi mhm. di ci dégg lu baax lu rafet war nga koo ibbi di ko dégg lu ñaaw loolu nit bu amee bëtu garmi ak nopp garmi wala nit bu la suñu borom élevé mhm. dafa am benn benn cër taxawaay am sax mooy mhm. doo wootee xuloo doo wootee xeex doo wootee uñu sutura jàmm ëpp solo xamul si jàmm ëpp solo mais pétrole bi daal mhm. euh, xu barik bi du événement du coow nañu ñi ñi ñi moom barik continuité la rek continuité la nañ ko exploité ñu moom bu ñuy félicité dañuy tàmbali ci Serigne Mboup ak Marie ak ak ak maître Madické Niang tàmbali ci ñi nga xam ne jaar na seen loxo tey ba yeg si fii mujjee ci biram Souleye mhm. nga xam ne kon looloo yàlla d'accord mais ñii nii ñii tey bu ñu am lu ñu defoon parce que ñi pourtant nag ña nekkoon ca si processus boobu lañ yàq seen der tas seen i kër yàq seen i famille jiim leneen donc am na yenn ndam yoom boo ko jëlee du trophée gàcce la am na ndamu gàcce <laughs> am na yoom ndamu gàcce la <laughs> d'accord euh, euh, waxtu bi jeex na mais parenthèse bu ndaw bu ma bëgg rek euh, ñu ñëw si tuuti parenthèse kaawu